dafa dellu seen xarit seen soppe seen sëriñ dafa ñëw biir ndakaaru njaay fas yéene dimbali askan bi fas yéene dimbali jaamu yàlla yi ci seen tawat yi ndax ñi ma daan fekk Cees mën naa ni xam nañ kan mooy sëñ xaadim waaye tey sëñ xaadim da leen koy yombalal ñëw ba seeni tànk nekk fii Dakar ci Ngor kon képp koo xamante rek am nga aajo bu mënti doon walla nga am tawat bu mënti doon Faire le contacter Seigne xaadim Seigne xaadim jàppale la moy numéro de nekk est écran bi moy 77 076 66 40 wala nga woote 77 490 54 05 wala nga woote ci Expresso bi 70 922 74 63 wala bu fekkee Tigo nga yor nga woma ma si bi moy 76 385 87 28 moy numéro yo bi. képp ku ci contact sëñ xaadim di nga ko jot ak aajo boo munti amee rek muy ci wàllu tawat yi nga xamante kat day dal doomu aadama boo ñu wooyee lépp loo xamante ne mën nañ ko ci sëñ xaadim dina ci jëflanteeg yow muy benn bu njëkk bi ñi nga xamante ne dañuy am jabet ba mu sonal leen trop ñu dem hôpital ñu tere leen a jël suukar ñu tere leen lekk ceeb wala dara ci kàttanu suy borom kooku noonu bu ñëwee ci sëñ xaadim sëñ xaadim am na garab boo xam bu ko joxee incha allahu rabbi bu ko dee jël ni mu ko war a jëlee aajoom dina fajo Bude yow mi nga xam da nga asma ngay fat mu lay sonal jëlal numéro bobu si écran bi nga wo seigne khadim boko ko wooyee incha allahu asthma asma nga amé amna lu ko ci yalla denk seigne khadim nak lepp day ñaan yalla suñu borom ndax yalla moy nangu ñaan sa yalla mo ni ñaan leen mom may leen kon seigne khadim day ñaan yalla suñu borom li nga xamanté kat da koy def muy fajum tosan lepp ci yalla la samay wajur ñoko daan def sama papa diko def ma jud tamit diko def pour lant pour dimbali si jaamu yàlla yëpp kon sëñ xaadim moo ngi woo ñëpp di pour lépp pour dimbali askan bi rek moo ko tax a jóg bu dee ki nga xamante ne dafa amee AVC bu dee maanaam yàggul ci moom sëñ xaadim am na si saafara yoo xam bu la ko dee defal incha allahu bi ay massage incha allahu rabi di nga jug sa bopp bu di nga yëgaat sa bopp bu baax a baax a baax yow mi nga xamante ni da nga amee fibrome mu sonal la fexe la contact sëñ xaadim dina la ci bu bahaba a baax a baax ki nga xamante ni la maanaam da ngay yéex jot sa bopp boo nekkee sa soxna pour maanaam gaaw développé wu day yéex sëñ xaadim am ci garab yoo xamante bu la ko joxee ci borom kat di nga ci am bu bahaba a baax a baax ki nga xamante ni ngi seetaan sa li nga xamante ni moom la bëgg muy lan yàlla dénk ko ci ko mu dem fu ne mu dugg fa na nga xek jokkoo seigne khadim ci numéro bobu ma la jox ci écran bi ci kàttan ci borom bo ci jokkoo seigne khadim dina ñaan yalla mi nga xamanteni ni moy may sa yalla telewul dara dina ko ñaan ba lolu nga xamanteni kan moy sama bat ah ñu tek ko sa loxo seigne khadim sen dom sen rak sen mak sen xarit mo ngi ni banen bi nga xamanteni kat moy ñi nga xamanteni dañ ma ci top di ci sonal moy ci walu yokk awra ndax parce que amna ño xamanteni batay ni da di sëñ xaadim lépp lu mu ciy def rek day leer say am du yàgg na koo def boobu ñëwagul dakaar ñëw dakaar bi ma ñëw nag ñëw ma pour toog déedéet damay jaar jaar rek ndax parce que sama lépp si àll bi la ne si guy gi nit ñi xam nañ ko. koo xamante ni bëgg nga yokk sa awra yaa ngi ci sa yaa ngi ciy yéeg loo xam bëggoo ko sëñ xaadim boo gisee sëñ xaadim dina la tegal lii yii nit ñi xam nañ ko nit ñi miin nañ ko muy bant yi dimension bu ci nit bëgg mooy yii mooy dimension yi. loo xamante ne rek nit ki maanaam mu ngi ko bëgg bu dee da nga bëgg mu toll nii sa awra sëñ xaadim da koy nat da koy day ñaan yàlla def ay biram ba nga xamante ne ci gis sa bopp bu baax bu dee nii nga bëgg mu toll tamit mën nañ cee def incha allah yokk mu toll nii bu dee nii la tamit mën nañ ko yokk bu mu toll nii ak nu munti doon rek noo ko bëggee rek maanaam mën nañ la ko cee defal lool ba nga xamante ne ci sa bopp man doomu Cees laa li may def nëbbu mu ko ragaluma ko damaa ñëw ndakaaru pour dimbali jaamu yàlla yi ñëw ma pour naxe li may woote nag ku mu doy nga ñëw seet sañ xaadim ku mu doyul nga toog sa képp ku jëflanteeg sëñ xaadim dina ñaan yàlla ba nga xamante ne sa aajo bi nga koy ñaanloo di nga ci gis sa bopp bu baax yokk bi nag maanaam comme góor ñi nga xamante ni dañuy am yu gàtt wala ñi nga xamante ni maanaam day néew doole du caagin dañ lay yokk rek kii buñ la yokkalee yokk bi day ànd day dëgër sa maanaam tamit am na yoo xamante ni boo ko dee jël incha allahu rabi moom mooy la sa amul benn problème du amul benn effet bu ci nekk à vie lay doon yokk bi à vie lay doon sa maanaam day gën a dëgër maanaam dangay gën a yëg sa bopp bu baax képp ku ci bëggul la leer na ma woo si numéro boobu si écran bi si kàttanu suy borom boo ma woowee incha allahu rabi sa aajo faju ñu yokkal la ko moo foo mënta nekk tamit si bitim réew mën naa laa yokk nga toog fa nga toog jox ma sa tur ak at bi nga am laa laaj ci carton ci borom ma yokal a distance ñima koy liggéey ñogi ngi ñima koy daan liggéeyal ñogi man di bu la xam nañ bu dul deug la xam nañ ndax kenn mënu nax kenn man nak doonuma sëriñ bo xamantene dama fay jaar rek pour nax nit ñi wal nangam ñima min miin xam nañ kan moy sëñ khadim ci deug rek lay dox doxuma dara ci lu bon te ci damay ñaan yalla suy borom képp ko xamantene am nga lula jaaxal sa bir neegu sey muy jigen muy góor boo contacté sëñ xaadim incha allahu rabi mu ñaan yàlla mi may ndam ba yàlla may la ndam bu dee ki nga xamante ne day jaay daa yor place di jaay place bi tëw a dox am naa ci loo xamante ne suñu boo xam bu ma la ko joxee ci kàttanu si borom nga boole ko ñu boole moom boo ko ci defee moom si kàttanu si borom loo mënta teg di ko jaay dootul taxaw mooy sunguf bayre boobu boobu moom àdduna waxuma Sénégal donc waaye àdduna bi ñëpp xam nañ ko sunguf sëñ xaadim boobu képp koo xamante ne rek maanaam moo xam nga entreprise mu taw a dox moo xam nga yor bitik moo xam nga yor place moo xam nga yor télé moo xam lépp loo mënta yor mu taw a dox boo gisee ak sëñ xaadim ci kàttan suñu borom mu yëkkati la ba àdduna ñëpp yëg la kooku suñ suñu borom la lépp nag yàlla suñu borom la sëñ xaadim dafa ñëw Dakar pour dimbali jaamu yàlla yi rek moo ko ñëw mission lay dox mooy li ma yàgg wax rek sëñ xaadim mission lay dox kon ànd leen sëñ xaadim mu jàppale leen ci yàlla rek tax bu dee koo xamante ne maanaam da bëgg a tukki wala ngay déposé ay këyit mu saw taw sotti kooku tamit bu gisee sëñ xaadim incha allahu rabbi yàlla dinañ ne sëñ xaadim dina ñaan yàlla ba nga xamante ni sa këyit yooyu nga déposé woon dina gaaw sotti bu dee dangaa bëgg a tukki bëgg a tukki nag du caagi ne nit ki dafa bëgg a tukki rek amul paas amul dara amul xaalis amul dara mu nekk sëñ bi damaa bëgg nga ñaanal ma tukki kooku sëñ xaadim munu ci dara da yor sa xaalis bu mat sëkk sa poos nga dikk sëñ xaadim sëñ xaadim ñaanal la ba kayit ba ngay déposé mu mën a sotti ndax dëgg rek moo fi ne ndax da ngay gis koo xam danaan sëñ bi day ñaanal nit mu tukki rek mu dikk sëñ bi nangam nangam sëñ boobu bu ñëwee yàlla lekk xaalisam man doxewuma noonu da ngay yor sa xaalis sa poos mu leer na lii sa boo demee dagg ci biir di nga tukki ma ñaanal la ba kayit bi ngay déposé kayit boobu dina gaaw a génn bu dee koo xamante ne day def concours moo xam ñiy jàng élève ñiy jàng képp koo xamante ne yaa ngi ciy def concours wala lépp looy mënti def muy examen lépp looy mënti def boo dikkee sëñ xaadim incha allahu rabbi sa aajo dina faju nu mu gën a gaawee sëñ xaadim njariñi kase la fii lu ñu naan taw féex léppam taw féex la sa képp ku ko seet si di nga xam taw féex moo fi ne boo bëggee ku la aaral sa kër moo xam galaaju sàcc ñu lay sàcc wala ñu sàcc la bu ñu la sàccee nga bëgg mu feeñ ñëwal su ma la joxee sama béjjén boo ko defee fa nga koy def ci kàttanu si borom balaa bis bee del si kala sàccoon na ko indi ak fu munti nekk dina ko indi kooku sama maam moo ko daan liggéey sa secret bu doy waar la sa ñi ma ko doon liggéeyal ñoo ngi may seetaan xam nga nit ki jamono dafa doon loo xam ne kenn jarul ndamu wala ngay nax kenn di taxaw di wax man sëñ Xaadim ba ma dalee feeñ si image yàgg na tey du ci gan kon lépp lu ma wax bu dee dëgg nit ñi may seetaan xam nañ bu dul dëgg xam nañ li tax ma ñëw Dakar dam dafa doon loo xamante ne comme Thiès laa nekk si àll bi nit ñi di ma woo chaque jour ndax Dakar bëri jafe-jafe yi bëri na fii di ma woo chaque jour looloo tax sëñ Xaadim ñëw dakaar fii Ngor pour bëgg leen a dimbali pour bëgg a dimbali jaamu yàlla yi bu dee seet da bëgg ku la seetal wala da ngaa bëgg ku la defal li si xaar kooku sëñ Xaadim mën naa ne moo ci mën ndax parce que su ma neexee man ne sëñ Xaadim moo ci mën ndax kooku lu ñu yàlla jox la nit ki dangay toog fa nga toog sëñ xaadim nga jël sa téléphone woo sëñ xaadim sëñ xaadim seetal la wax la ay tur damay seet ci ndox damay seet ci suuf damay seet ci alxuraan damay seet ci kurus nga toog fa nga toog ma seetal la wax la ay tur sa tur yu wér nag laa lay wax du làmbatu ndax li may def làmbatuwuma ci bu dee làmbatu làmbatu kase duma ñëw kon askan bi maa ngi leen di woo pour jàppale leen sëñ xaadim fii ay njariñ kase la bu dee jigéen la boo xamante nga amee rab rab moom ah mën naa ne sëñ xaadim da ko téye ci loxoom sa ku fi ñëw moo xam bu dee dama la mën a faj fii dama lay faj fii bu ma la mënta faj fii dinaa la teg sama oto yóbbu la ba Cees ci sama guy gi defal la foofu lu ma lay defal ci kàttanu si borom boo amee àndandoo rab ba mun laa teree am ba mun laa teree am jëkkër munoo am jëkkër wala maanaam munoo toog ci sëy wala ngay yakule sa alal di yakku ci carton ci borom bo dikkee incha allahu rabi su la joxe sama sangat sa aju faju budé dama ko mëna fajj fi Dakar ma fajj la fekkee mënu mako fajj fi ma yeb la sama auto and ak yow ba ties ci sama bagage yobula fofu foofu defar la lima lay defal andat ak yow ñëw. ndaare aduna koy futi foyde maa gore jam ko heewi e dow golle bonɗe enɗan boni daretuna fuɗɗi fuyni won mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. heɓe woyoɓe kono won be. لهلي ولجلي سوانا مو يلي دنيتا بنيامي سوانا مو يلي دنيتا دولي ndare aduna koy fulti foyde ha gore jam fo heewi boni ndare duna fulti fuy kono wan again. aca mbokk yi comme ni ma leen ko waxee woon ci njëlbeen gi euh, sëñ Xaadim borom tawféex borom guy gi tey nag boobu ba tey yéen a ngi ñuy dégg ñuy wax borom guy gi tey nag ñëw nañu fi nga xam ni foofu la euh, guy gi nekk comme ngeen ko gisee mbokk yi ànd ba tey ki nga xam ne mooy sëriñ Xaadim borom tawféex sëñ Xaadim euh, ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi ñëw nañ nag fi nga xam ne mooy guy gi guy gi moom ana lan mooy particularité maanaam njëriñam dëgg nga wax ko tey mbokk yi ñu seetaan. waaw salaamaaleykum. waaw guy gi maanaam liy njëriñam maanaam mooy nga xamante ni comme nit bu amee ay def-def wala nit koo xam dafa bëgg a sampu wala nit koo xam dafa amee rab comme sànq ñu fi doon sangu léegi koo xam day daanu daal wala ay rab da koy sonal wala jigéen joo xamante ni ay rab da koy sonal yooyu yëpp fii lañ lay indi buñ la fi indilee rek bu ñu la defalee li ñu lay defal fii rek moom ci kàttan suñu borom day féete boor waaw. mu ñëw fekk gis fi tamit ay mbir xaw ma ndax dañ ma may mokk nga nga nga am ay mbir yoo ci samp mu yéeme lool. Euh, mooy comme yii nga gis nii yii nii ay pont la sa pont yu si nekk day ab lu muy àndal ñu jël ko samp ko ci nit comme nit bu nekk ci place di liggéey maanaam affaire yi taw a dox wala maanaam koo xamante dafa bëgg a samp lépp lu mu mënti def rek kàttan suñu borom bu dikkee fii lañ koy samp moom buñ ko sampee rek moom jeex na moom ay mbiram moom nu guy gi taxawee noonu la ay mbiram di taxawee waaw noonu lay jógee si kaw waaw moom lépp lu muy liirte rek bu ko buñ ko sampee moom jeex na waaw. kon jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf mbokk yi jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf yal na leen yàlla defal jàmm yal na leen yàlla sàmm yal na leen yàlla aar jërë ngeen jëf